Rewmi 24 TV ni nga ko mbokk yi yéen ko gis euh, Ndakaaru Ndiaye fi mu toll nii lañ ko tuddee rek mooy euh, vendredi de la libération mu mel ne kon fi mu toll nii ñëpp la ñuy sàkk rek mooy ci Macky Sall mu daal di démissionné ni mu gën a gaawee ci bopp réew mi kon mu mel ne tey Sénégal daal di tàng jiir rek ci vendredi tombé ak le mu mel ne askan bi yëpp rek ñoom ñoo booloo ci 14 régions Sénégal yi mu mel ne rek fi mu toll nii manifestation yu tàng jiir rek lépp boolekee ci dëkk bi dara mënatul dem. fii ñuy wax ak yi sax publication ci Facebook yi maanaam rek dañ koo dagg mu doon loo xamante ne rek daal dina doy waar lool fii ci Sénégal ndax kat bu ñu xoolee Macky Sall annulé yi mu def élection yi mu mel ne bu démb doon tey du ko def ndax kat boobu ak léegi réew mi nekkul ci jàmm benn yoon takk jëri ña ngay xeex ak population bi mu doon loo xamante ne lu métti la ci askanu Sénégal ëllëgu Sénégal jamono yi kenn rek mënul xam naka la waaye fi ñu wax ak yéen yi askan bi yëpp booloo lu ñu bëgg rek mooy sàkk ci Macky Sall mu daal di rek démissionné nu mu gën a gaawee rek wala nguuram gi nu egg loolu rek la askan bi di sàkk